accident de la circulation tàmbali bariwaat fi nga xamante ni moom moo di ci route nationale numéro 2 diggante Ross ak Ndar ñu wàññi ci rek ñetti accident yoo xamante ne ci diiru weer lay war a tollool benn ci village bu bari muy wax xale bi nga xamante ni mi ngi wuyoo ci turu Maymuna Ñas benn ci village bu ci leen ci xale bu tudd Aminta Kan Diop waaye nag benn ci fi nga xamante ni moom moo di ci Ross ñaar ñoo xamante ni ñoom ñoo bokk ndey ak baay Moustapha Ndiaye ak rakam loolu nag tàmbale nekk loo xamante ni mi ngi ëlëm askan wi ba tax ñuy yëkkati seen kàddu di wax ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di autorité yi ci wàllu wile. waaw avant tout ñuy masawu njaboot yi nga xamante ni si ñoo ñàkk seen ay doom di leen jaale donc par rapport ak question boobu nekk question accident yi am national je pense que li waral facteur yu bare la et puis si jiitu nag. mooy man dama jàpp ne am na ñàkk respecté ñàkk waru ak code de la route ndax te tey dëkk boo ciy dugg defal na la booy wax ni da ngay daw 50 wala da ngay daw dala wala yaa ngi en zone danger wala yoon même bu doo daan amul je pense que chauffeurs yi bu ñu respecté woon aussi code de la route def lu ñu war a def je pense que mën nañu moytu lu bare mais ñàkk bi nga xamante ne si ñàkk la ñuy respecté code boobu mooy jur jëy ndax comme ni ñu sur la route nationale 2 normalement jarul woon sax def doo daan mais léegi dañuy jàpp ne ralentisseurs yooyu tey nu mu ñàkk ci dëkk yi te chauffeur yi respecté tuñu code de la je pense que dafa nekk maintenant une urgence que tey autorité yi obli obligatoirement ñu def ay ralentisseurs au niveau des villages yi xam ne dañu séq tali bi de part ndax dëkkuwaay bi aussi ñu mu bindoo moom moo tax accident yi di gën a bare ci axe bi ndaxte bu fekkee xale dafa war a jéggi dem ci boutique wala xar dafa wara a tay dem ci benen kër yonenté boobu je pense que lolu da fay tax également risque bi élevé ci xalé yi mag ñi mën nañu am possibilité janoo wala xar oto yi jàll mais xalé xamul lolu bu day mel ko kuy njëkkanteeg auto donc yooyu aussi da fay yok djey euh, mu nek nak euh, vraiment lu lu métti ci ñun ñëpp donc euh, ñuy ñaan rek chauffeur surtout ñu gën a prudent gën a wàccoo ak code de la route di respecter indication yi leen di jox surtout les tableaux de signalisation mais également di ñaax autorités yi ñu fexe vraiment très rapidement gox yi de Saint-Louis à Ross Béthio mu am ay ralentisseur au niveau de chaque village. waaw loolu daana ko tey daana ko jamono yëpp ñoo ngi am njàqare ci yu mel noonu parce que du yàlla loolu dafa interpellé mairie bu ne euh, ci wàllu dog-dog yi ci wàllu hymne national bi yàlla xam na ni euh, fii un mois.

te loolu vraiment loolu ñu bëgg dimanche état taxaw ci ba lay parce bu amu rek day pren population bi am vraiment riposte bi nga xam ne mën a jur ay jafe-jafe entre population bi ak les autorités administratives loolu encore jafe-jafe ci biir local bi waa ci mooy li fi xew bu yàggul rek liñ ci naqar lu bari na ndax xale bu ndaw yaayam nekk ku ndaw tamit yor ko muy taawam mu koy yaakaar mu xëy xëy benn oto romb ko fii fël ko loolu lu métti la muy lu ñu muy lu ñu métti lu ñu naqarlu loolu aussi ñu jug waa dëkk bi yëpp jug ànd du ko xeex di xeex pour am ay ralentisseur ñu jug fii yëpp mais taxul gis ñu benn autorité du préfet du sous préfet du gouverneur du ko garde kii ay routier ñoo fi ñëw gisuñu keneen loolu doon lu ñu métti ba tax ñu ànd ak naqar ba yàq tali bi ñuy dagg ko ñu bari dañ fiy jaar di ko naqarlu parce que loolu dafa nekk métit boo xam ne si ñun du tey du lu bees si ñun yàgg na fii tali oto yàgg na fii rey xale bu ndaw fii kër gii ngay jàkkaarloo nii ñaari ñetti xale yu fi dëkk yoo xam ne si tali bii la leen la la leen oto fàtte man mi di wax yéen ñett ñi ma lay wax ñoo bokk ndey ak baay fii lañ dëkk kër gii Moustapha Diol mooy seen pap fii la leen oto tel suñu chef de village suñu maam noonu la kaw def fii ak njabootam yéen yaa ñi mu yàq yóbbu seen xel ñi mu seen ay tànk fii ci bari te du benn du ñaar ak ñeneen ñoo xam ay oto yoo xam ne dañu fiy ñëw ba agsi tamit dëkk bi ya ñu ñàkk fi seen bakkan kon luñ ci liñ ci bëgg rek mooy am fi ay ralentisseur yoo xam ne buñ oto yi buñ fi jaaree daañu daw nànk parce que oto yi liñ fiy daw liñ fiy daw jaaduwul da gis ñaari biche ak biche ni mu tas ñu ñëw ba ci dëkk bi tali bu ndaw bi ñu fiy doublé def lu leen neex te doo ci man dara te loolu autorité yi rek yaakaar ñoo ci man dara te ñoom lañ ci yaakaar te li fi am yëpp accident yi fi jot am yëpp ñu leen ciy yaakaar dañuy toog fii xeex ba sonn duñ fi gis kenn kenn du fi teew lu dul ñu def délégation dem ba ci ñoom ñu wax dara buñ fa jógee pare nañ ci loolu rek lañ fi gisagum métti nañu torop nag ñu leen ciy xaar di leen ñaan buñ ci ñu dimbaliñ ci rek ñu am ay ralentisseurs yoo xam ne oto yi da buñ ñëwee daa ñu def nànk ba suñu doom mën a mucc suñuy rakk mucc ñëpp mucc parce que lii métti na torop du benn du ñaar du ñett mu fi am. ñu sukkandikoo nag ci bi nga xamante ni moom moo amoon ci Ross Béthio mi ngi amoon ci biir koor gi laata ñuy àgg sax ci korité loole nag mun doxoon rek diggante benn jakarta ak benn. surtout voiture particulier ginnaaw bi nga xamante ni nag oto particulier bi daf ko jotoon a renversé ba yóbbu ko ci pont bi loole nag ñaari nit ñu bokk ndey ak baay ñàkk ci seen bakkan mu doonoon nag accident bu métti métti ba tax nag ñi nga xamante ni ñoo nekkee ci gox bu Ross Béthio ñoom di gën a wax ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di dawalkat yi rawatina nag autorité yi ngir nag ñu dal di jël li nga xamante ni moom moo di mesures yi jëm ci wàllu sanctionné ñi nga xamante ni ñoom ñooy def jëf yooyu le Omar ak lu way mëna wax moy que ni euh, volonté politique réelle amul ci mbir mi ndax mbir mi fay laaj courage également pour régler ndax bu féké da nga war a euh, tey jubbanti ay mag je pense qu'il faut nga am yat bu dëgër pour jubanti leen mais il faut nga ñëmé ko pour jubanti leen mais bu féké heure bo tuddé ben mesure euh, syndicat des transports ainsi de suite rek nga tegaat fi je pense que le problème ne sera jamais réglé donc mesure yooyu ministre je pense qu'il devrait avoir le courage d'aller jusqu'au bout de ça mais malheureusement Sénégal le ñu Euh, li lal li lal décision yëpp c'est des décisions politiques et l'on daf ci feeñ ba nga xamante ne si nous euh, mas a jël wala duñu mën sa def loo xamante décision bu bu bu askan wi di xaar la décision de faire lay doon pour dimbali askan yi ndax bu ñu ay mesures aussi

te il mooy ñoom dafa mel na dañuy juñ dramé ñoo gën a yàgg te loolu lépp war nañ ci bàyyi xel parce boo nee nangam dañ koy def si wàllu wàllu transport war nga mën a mu jàll bi suuf mais ñoom lenteur bi ku na xam xam nu muy demee moo appel daal vraiment ñoom ñoo xam ñoo loolu bu ñu waxatee benn cas pour mu war de euh, aar askan bi dañ ci war a mettre de des des mètres bu ñu ko appliqué duñu am jafe ci askan bi kon loolu la ñuy ñaan rek ministre de transports mu am taxawaay ci loolu. ci village bu bari jàmm mom ñuy wagné rek nit ñu bari ño xamanteni ni ci lañu faato ci tali bi waaye nag ñeneen ñi nga xamanteni danaka seen yaram ci la yàqoo ndax it ay série d'accident yu dul jeex lolu nak tax rek seen mer dem bu futu ba tax ñomit ñu dagal seen bop sax tali bi ngir dal di koy soppi ralentisseur neem amuñu ko bok na nak ci la ñaxtu bobé nga xamanteni ki di euh, xalé bi di am maymuna ñass jot na fa ñak bakanam ba tay amut benn autorité bo xamanteni gis nañ ko mu tek fa tankam donte sax ngir massawu leen na ma torop pital na ma torop ak ni mu teglo dafa teglo entre di zone tak gañ bi dafa teglo torop te ay xalé ci biir ay jeune loolu loolu rek lañ fi dé ay jeune kasse ño fi dem tol ti met na te tak gañ bi yépp yépp loolu nakar bi ñom ñëpp la ñom ñëpp ñoo koy jooy ndax du kenn ku fi am benn dëkk bu fi am ralentisseur yépp ñom ño bokk national numéro 2 mu ngi ni yépp da ngay doxé da ngay dugg njool ba fi boo jee xasee ba jénn njëw dun ba ros beeki doo fi gis ralentisseur loolu mu doon lu ñu métti te si zone boobu la accident yi am donc même tableau yi tamit chauffeur yi bu ñu rombee respecté wuñ ko ñuy ñaan nag ñu dimbaliñ ko defar tableau yi ñaaxaat chauffeur yi ñu respecté yoon tamit dimbaliñ si ay ralentisseur ba yu mel ni yëpp gëj fi daal chauffeur yi ku ñu ñëw def nank jàll defuñu ko dañuy tegg si booru tali lu si mel ni kër gi gis nga xale yi fii dañuy ñëw di génn xam nga boo teggee ñëw xale gisoo la ko moom mën nga si indi ñu tax ñu looloo tax nag ñu baare waat fii bu ñëwee ñu def sa bu yàggul rek fii oto yu bari dañuy ñëw marché la doo daal ñu dem dañuy dañ fiy indi kii ay complications yu bari moo tax barrage yi yëpp ñu def ko bu teggi bi ñuy teggi